mais encore une fois dañuy dankafu Macky Sall monsieur Macky Sall gis nga bi passé dañ la jekku sëriñ yow di ñaan ñu respecté leen jox leen cër dem wuy ji leen def lu ñu wax xol waye nak gis nga taga kenn du ko nax ñaar yoon wallahi kenn du ko nax ñaar yoon xam nga nga daw sëriñ yow sa bop Macky Sall ya daw dem ci sëriñ na leen ñu wote askan wi pour dalal leen sëriñ si dem woo askan wi dalal leen sëriñ si ñun demaat nañ ci sëriñ si ñëpp wax ak moom sëriñ si ne la nga waxoon la nga diggee woon ñoom ña nga diggee woon ñoom defoo ko ñun nag lañ diggee woon si def nañ ko luñ diggee woon nañ ko bam ñu ne bàyyi leen wax naa ak Macky Sall Macky woo na ma ñaan na ma nee ko dinaa woo ndaw yi dalal leen woo na ndaw yi dalal leen ok légui nak nekkal nit gis ni élection yi lerna na nañ da perte à 200% 200% je dis bien je pèse bien mes mots dang ka perte complètement Thiès ya nga fay préparer say mbir wallahi boko fa défé billahi di nga talat dëkk bi té waxuma la sëriñ dé yenen yi sax bu ñu duñ taxaw lu leer lañ lay wax nak waxuma la sëriñ dé xam nga yenen ñoo sëriñ yeneen taux sax laa wax bu ñu wootee woon duñ taxaw pour muy clair un homme averti en vaut deux sa yëfu dëmm ngay def noonu noonu buñ bu métteer nga daw yuuxu ji si sëriñ si kaa leen dimbalee ma bës bu askan wi jógaatee ndax bii passé quatorze nit nga leen rel quatorze doomu aadama gis nga mer googu ñu mer loolu dafa leer te loolu ñu ngi ko denc suñu xol suñu six mille milliards ñu ngi ko denc suñu xol si sa rakk boobu noonu ne ko wax suñu mille milliards bu sa goro lekk ne ko wax Mansour Faye suñu 14 doom yu nga kill. te mujjul fenn dañ ne on vous dit nga jël nox wallaay boo laalee élection yii nar fi wax lenen. waxuma la waxuma tal ay kër de yéen la ñuy taal bii passé que seen kër lañ taal mais bi nii di ñëw yéen la tal, taal direct je le dis haut et fort déglu leen Macky Sall dama ne bii passé xam nga seen kër yi lañ doon taal ngeen daw dem ci hôtel yi bii di ñëw nak, bi, bo dof dofloo balaa élection yi. balal yi ni ni ni ba bluffé ko kaolak conseil régional bi benjelu moko gagné gis nañ bi tey di teñx teñx di daw di wërna des jibilé jibile di dof dalu affaire yoy ngén seen yëfu dëmm yoy ngén di def dafa jeex élection présidentielle ni nga fi paré guñ sax nga daw dem ci RTS ñu euh, buñ Abdallah di déclarer nan yéna gagné sen affaire dëmm di def di waxu waate ay ngén ngeen kat yu bon ngén ay sàcc ngeen yu yuuxoo sàcce yi da ngeen di sàcce ba pare bu ñu leen jàppee ngeen daw yuuxu so yuuxoo sàcce yi keneen di victimisé wu loolu daf jeex jeex na fi tàkk Thiès dañ leen fa gañe ba taali si la woote na di félicité Kafane Diourbel pare yi dañ leen fa gañe Daaru Muxti dañ leen gañe Rufisque dañ leen fa gagné ba léegi yaa ngi téye ay résultats sa waay compte yomb na compte yomb na ay xob mënuñu boobu ba léegi nga téye élection yi dimanche la ba léegi léegi dimanche jot lundi mardi mercredi dimanche ba mercredi amul fenn amul fenn naa la wax loolu mag amul fenn. bu dee fépp ci àdduna élection mënul am ñetti fan ñuy xaar élection bu am dimanche ba mercredi ngay téye ay résultats di dof doflu ñu ngi lay xaar nag ñu ngi lay xaar ba nga ne xuu xaar rek ba wax ne Thiès xolal loolu amul yow yaa gañe ñu ngi lay xaar ba nga xuus rek ne Daaru Muxti yow yaa gañe ñu ngi lay xaar rek ba nga ne Kaolack conseil régional yow yaa ko gañe dinañ ci xam dara ba xam ñun sañu nopp yi ñun bu ñu konte ñun toog ñu di déglu ba xam ñun yow yaa ñu dàq calculer wala yaa ñi dàq mathématique ay sàcc yi mag ngeen ay sàcc yi mën a waaxuwaate dox ci conscience gars yi sàcc seen élection yi daw taxaw ci média bi di di jubilé man ba ma gisee bitey di wër ci Kaolack bi di jubilé kan moo ko wax ni moo gañe xanaa ñu dégguñu résultat yi pensulum ñuus ko ba saw ci kawam mu génn dugg otoom naan day jubilé Medina tam même chose ña ka fa ne noq nañ ko ba muy bëgg a dee waa benn Bokk Yaakaar boojo boojo yi ñuus ko mu génn naan day jubilé yéen ko leen yàpp seen yëfu dëmm yooyu doo leen ko bàyyi doo leen ko bàyyi da xam ne askan wi jéppi na leen askan wi bañ nañ leen bëggatuñ leen ay doomeraam ngeen sàcc yu bon ngeen doo nit yu baax buñ leen falee fii nii nii nii nii Abdoulaye rey na plus de douze aadama Macky Sall douze doomu aadama la Abdoulaye Wade rey nit yi encaissé si ay balu fetal lu ne booy dañoo ci ay deret nga doyoo Macky Sall pour dugg ci pale boobu ci deret Mamadou Diop ay butitam moo génn ñu koy tibb di delloo man ñii sama loxo damm ci ñii seen pat seen bët patt ci ci ay deret nga nga nga dox ci ay bët yu tuuru nga dox ci ay loxo yi damm tànk yi damm ci ay nit yu faatu nga dox ba dugg biir palais ñun ñu la ñoo la faloon bëggatuñ la sa ji seede yàlla bëggatuñ xam ni bëggatuñ la nga gëm yàlla xam ni ah ñun kat booy ñii kat bëggatuñ ma ñoo ma bëggoon bëggatuñ ma waxuñu dara ci man dañ ma bañ gi billaahi gutuñu la askan wi kenn bëggatul la ñu la topp yëpp dañ lay nax sàcc sa xaalis lekk ko wulli lu wulli yulli tulli bi lañ lay def lu yulli wulli tulli bi lan la ñu la topp nii gëmuñu dara seen type digestif rek moo leen intéressé kenn da topp la magi billaahi wallaahi je le dis xolal te dama la bëgg rek moo tax ma wax la ko barki laa ilaha illallah askan wi dañ laa wàccu bëggatuñu la askan wi laa la wax nag waxuma nag ñu topp nga xam seen type digestif lu ñu lekk la ñuy wër bëri na ay sénégalais yu la topp nii matuñu 4 5 topp la di yuux Macky wéy Macky jaral na ma ko billaahi day fen jaraloo ko ko barki laa ilaaha illallah jiñ naa ko ci daraje Seydina Muhammad jaraloo ko ko day fen ana ñu jaraloon Ablaye am na ñu doon yuuxu fii naan ay Ablaye Wade moo leen ko jaraloon ana ñu tey ab Ablaye Wade amoon na ñu gënoon sari nekkoon ci télé rajo yi di woote du suba ngoon wax sa xalaat ay Ablaye Wade amoon na ay chien errant waaw Ablaye Wade du seen morom mooy seen baa anañu kenn deewu ci de ñoom ñëpp ñu ngi di dund kenn deewu ci nee nañ France sey noonu la Abdou Diouf amee woon tamit ay doomi xaj yoo xam ne ñoom seen ti dib dib digestif rek moo leen intéressé woon suba ngoon di yuux Abdou Diouf Abdou Diouf nee nañ wareet sey deewuñu de ñu ngi si askanu seer kon noonu nga amee ñi nga am noonu nga foog ni dañ loo gëm gëmuñu la de nañu defoon Abdou juuf lekk ko ba mu jeex def ko abla wad lek ko ba mu jeex lañ lay def dina lek ba nga jeex ne bes 2024 nga xamni amo dara dara ndakate yow xol ci ngalaw nga don fo ci ngalaw yi nga don naw 2024 ngay tok ce ce tok ce keur xolal ken dula wo ken dula xol nga tok xol gauche xol droite gis say dom gis Marème faisal do do gis ken nga comprendre lay kon man ni lañ ma toppee woon ndakate ñii ñëpp gëmuñu la azim gëmuñu la mais xamago lolou ñëpp dañuy mujj fondre ci masse bi seey <laughs> sa waay jiitu woo de sénégalais yi gars yi gaa gars lool la de xolal da ngay tëgg ñu feccal la tàccu la xolal <laughs> nga foog ni yaa téegal gaynde gi mais xolal dañoo gëm ni yaa yore ndënd yi rek mais bés ko keneen nangoo rek ñu rocceeku seey la bàyyi la fa ni ñukk na yàq bu naqari mel ni musoo xew fu ñu la solo la caay ngeen balaa nga ñëw ci suuf lu leer laa lay waxal nag ay vrai da ngay jaay no xor ñu won da ngay jaay dem ñu won la ñoom ay no xor lañ ñala la da ngay jaay dem ñu won la ay no xor lañ loolu kessa la mais nak luma lay wax mom moy li gaay yi nañ de te lo ci bañu bañu ñuko ci dama ne gagné wo fenn Rufisque joxel résultat yi perte nga fa perte nga fa joxel résultat yi nit di dox sen soxla am nañ leneen mënuñu concentrer plus de 3 mois ci politique Macky Sall dëkk bi dafa tarder dëkk bi dafa salte dëkk bi dafa lëndëm dëkk bi dafa xasaw dëkk bi dafa tilim dëkk bi avancé wul dëkk bi gars dañoo dañoo xonet yoruñu fukki dërëm dañuy génn di agressé bay agressé weccet Macky Sall politique bi moo doy gars yi dañuy liggéey liggéeyi génn résultat yi tu as perdu tu as perdu à Kër Massar tu as perdu à Rufisque tu as perdu à Thiès tu as perdu à Kaolack tu as perdu à Diourbel même fatigue non non sax perte nga fa presque 60% pour cent ko perte joxeel suñuy résultat gaay dox sen soxla gis nga préfet yoy noonu préfet yoy noonu ngay ngay jéem a di len jox ay auto di leen fenloog yoy nga xamni ne gëmuñu dara barki rasulillah la wax 2024 di nga wër di lak ana préfet yoy noonu di koo ci ñëw mu ne la wuu musuma laa xam xaw ma la tey xaw ma la suba dimbala ma de doxal sox soxla Macky Sall bul siquma ko yow du yàgg dara dans deux ans nga demaat ci préfet yi nii nga xam ne ñooy jouer le sale boulot yow Macky Sall xanaa ñun dañoo dof résultat yi leer na ñi ñëpp dégg ko nga jël ay affaire jox ko préfet yi préfet dem bu buure euh, urne yi feesal fa dell génn ku fi wax suffrage bu kenn voté wul bu fekkee ab dëkk bo xamni 1000 mille ñoo voté nga nan ay 1800 huit cent euh, euh, APR ah, moo am 1200 dañ lay ñuus ab dëkk bu am 1000 personnes 1000 personnes yi voté nga dem ne nga ngeen dem def bourrage de bourrage d'urne genn nañ ñu 1800 huit cent dinañ la ñuus bii passé da nga daw sa suufu defaa la waa xam nañ ne yow léegi comme bu nee bëri tak rek nga dugg sa suuf defaa la sa suufu defaa la lañ lay fekk sa suuf defaa la buñu révolté wu fi demb barki demb mu tang jër taxawoo sa kër té pourtant fanan pale buñ commencé di révolté wu bu muy jeex pale ga fanan té pourtant Macky Sall nga commencé fanan pale pale lañ la tégon nga né pale dafa bëri ay sëriñ tok dafa bëri liñ fa suul ak dafa bëri suba ngor nga nekk fa di sulleeka sul sulli leen fi sulli leen fi num goudi goudi goudi gaay escorté escorté la nga dem ñibi ji mermous li kañ nga commencé yow dëkk bi tàkk rek dëkk dëkkutoo Mermoz dëkk bi tàkk rek dëkkutoo Mermoz te Mermoz yaa ngi fa tegoon mille mille éléments yi nga fa teg mille éléments gendarmerie ñoo wër sa kër Mermoz bu ñuy taal taal bi mille éléments gendarmerie nga nga nga rangale armé jusqu'aux dents tapet bi nga doon ragal buqat bi giri sax xamoo ko waxuma laa nag kaso waaye nag boo laalee résultat yi billaahi laa la xoolal loo ci bañul bañuñu ko ci loo ci bañul bañuñu ko ci danañ la wax lu laar nag sa régime moo jeex fii mënoo toog fi forcé dara affaire yooyu noonu de am gis nga gis nga gis nga gis nga Afrique léegi dañoo rafet de dañuy soulevé wu de Mali gis nga lu fa naroon am gis def Guinée la fa naroon am gis nga lu gaay def ñu la gënoon nekk ay dinosaure politique lañ tëbal Mali Guinée gis nga gis nga fii Burkina Burkina Kaboré la gënoon tàng tëbal nañ ko. Les jeunes africains ils sont debout résistants par rapport à la guerre. parce que avons une révolution bu amul ay nit yu faatu ñun xam nañ ont douze quatorze Ils ont nga quatorze euh, rep ay trente et quelque nañ ont Mali gis nga Guinée gis Burkina gis printemps arabe gars yi bañatuñu dara léegi bañatuñu dara parce que dund ak dee mooy lan proof of life kenn du dee ñaari yoon dee benn la jour ba ngay dee da ngay dee allah kulli àll kenn munul daw sa dee ku war a dee da ngay dee ku warta dee doo dee est-ce nga léegi la jeunesse africaine moo soulevé wu dek benn globe compact di xeexandoo di di yëkkatindoo di dóorandoo di fëggandoo muy dal dama la waxal dara boo laalee élection yii Macky je le dis haut et fort yéen muy dégg bu baax boo laalee élection yii billaay wallaay di nga bëgg a seddal dëkk bi mu tëla te di nga daw ci sëriñ ñu gumba tëx duñ leen sax déglu duñ leen sax déglu parce que nag dañ koy wax wax nañ ko waxati ko on les respecte bien on les aime bien suñuy sang lañ suñuy sëriñ lañ mais bu fekkee ni prise de décision bu jotee duñ leen dégg bu suñu jëlee suñuy décision kenn duñu duñ dégg kenn bu fekkee prise de décision bu jotee duñ leen dégg bës bu ñuy jël décision ñun tamit diko ko fajal suñu bop te duñ déglu kenn kenn kenn duñ ko déglu day leer day leer de ku la nekkalul ci kër gi mënu la nekkal ci naaj bi ku la nekkal ci naaj bi mo ngay nekkal ci kër gi bu fekkee day tar duñ leen dégg bés bu ñu jógee di fépp duñ déglu kenn dañuy gumba tëx tëx tëx tëx tëx lu gumba nekk focus ci lu ñu nekk ba lijjanti sañu problème dëkk yi fi révolté wu yëpp ay dëkk musulman lañ ay dëkk yu fa lu fa mooy musulman ay dëkku diine la Mali dëkku diine la Guinée dëkku diine la Burkina dëkku diine la te ñooñu ñëpp dañoo révolté wu te foofu yëpp am na ay ay marabu am na ay sëriñ am na ay ñu jiite mais bu ñuy jógee askan bu jógee pour taxaw dama ne ay sëriñ sax ñoo jóg jiite ko Mali gii ab ustaas moo ko jiite ab imam moo ko jiite ab sëriñ moo ko jiite Mali gii. est-ce que lu ma la bëgg a expliquer pour te dire clair ñun buñ amul ay ño xam ne dañoo engagé ay marabu ay ay sëriñ yu engagé wu taxaw xoolal jiite combat yi jeunesse bi ñoo koy jiital seen bopp te kenn du len téye on n'arrête pas la mer avec ses bras pour muy clair wax nañ la ko nag boo laalee suñu élection yi di nga xam ban bois la ñuy chauffé wu ça va être clair devant tes yeux da ngay dof-dof lu fu mu ne da nga tiit yi nga gis ni mu téye élection yi nii dafa tiite xel ma ngi naan ko waxal ya gagné xel mi naan ko yii bul taal dëkk bi ci la nek ni moo tax muy woogaay gaa yi waaw Mali imam Dicko moo fa nekkoon moo ko jiite imam la imam la mais saa yi politique politique dafa bokk ci dundu même Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam dafa tegoon politique am Makka dafa indi politique am politique du du loo xam c'est l'art de diriger la cité c'est tout l'art de diriger la cité loolu mooy politique ñëpp dañuy politique ku leen ne politiqueul day politique everything is politique la politique tu l'as fait ou tu l'as subi kenn mënul ne duma politique stratégie bu ngay doxalee sax politique la everything is politique léegi nag duma politique politicienne ok duma politique politique wuyu politique u bandi politique u naan deret politique u yekk lekk yàpp askan duma ko def mën nga wax loolu mais duma politique loolu amul ça n'existe pas da ngay politique le fait de bañ bokk ci benn parti sax da ngay politique C'est politique Donc, donc imam dit que en Mali qui dit jiite révolte indignation a fait. def parce que ce askan askan wu soxla c'est c'est clair maintenant si ñu weesoo parce que c'est sûr Macky Sall li muy la la instant yi dafa a moo tax man leen génn leen jubilé xam nga bu ma leen koy wax gaa yaa ngi nekk fii di rey man leen daw leen génn jubilé xam naa ñi amal affaire ay dëmb lañ dañuy dëpp carte gi dañuy lamber carte gi nu mu gën a gaawee ay jokatu mariage lañ ay bandi lañ pouvoiriste lañ dañoo bëgg pouvoir bëgg bànneex ci loolu lañ bëgg dundee ba bëgg ba ba ba ñuy dee man leen daw leen jubilé ñoom sax ñoo mujjee génn di profité di jubilé te waxoon naa leen ko daw leen balaa ñoom ñu leen di jiitu ci mbedd mi vous avez leen que ci mbedd bi di jubilé ak seen ñett dañuy ñu dañuy ci dox sa time sa ni c'est le peuple qui a gagné c'est le peuple qui a décidé de voter de vous sanctionner parce que depuis bu ngeen fi nekkee lépp ngeen ngeen yàq une institution yépp ngeen si vous avez ba di dox passeport diplomatique yeen Maki amatu leen loo wax exister tu leen vous aduna di dox ba pouvoir exécutif moy pouvoir législatif moy deuxième suñu deuxième pouvoir ngeen japp deuxième pouvoir pouvoir exécutif moy bu palais pouvoir euh, pouvoir exécutif pouvoir législatif le pouvoir législatif ngén lañ japp ay ay say élément ñuy def ay faux billets 32 milliards Macky Sall loolu bu fekkoon askan wi deug deug deug dañ dañ leen waron buub yeen dañ leen waron taal yeen ñepp taal taal taal lolu askan mënu la ko bal askan nu mu bon bon bon ak nat bu ko yalla tek waru la mëna bal. lolu suñu pouf deuxième pouvoir aduna yépp deuxième pouvoir moy le pouvoir législatif lañ japp say député ñii di jaay ñii di jaay ay suñu passeport diplomatique diplomatique loolu dafa doy waar ay passeport diplomatique ñu jàpp say askan ñu koy jaay ñu jàpp say élément ñuy jàpp suñu passeport diplomatique doo jàpp benn français buy jaay passeport diplomatique wallahi la azim doo jàpp benn américain buy jaay passeport diplomatique député jamais doo jàpp benn australien buy jaay passeport diplomatique jamais saaga bu doy waar la suñu institution yi ngeen naxasal passeport diplomatique ñu japp say say député yu koy jaay askan diko jaay sen askan un blor moy un ñu japp say député ñi defru di wax ni ñom dañ doon jaay ay semence ak teudé jaboru jamburi yi solo moko fi wax ñu japp ce député ak 32 milliards de faux billets ce député gis nga nu ngeen nasaxalé et cetera et cetera ay say député taxaw di menacer wat ay jasi kon suñu deuxième pouvoir ngeen deuxième pouvoir bi dafa laal premier pouvoir mais parce que nous jappé ay député à l'Assemblée nationale qui ci passeport diplomatique dañoo remonté le biir palais japp nañ fa ay gendarme japp fa ay policier biir palais ak japp fa ay éléments yi liggéey biir palais ñi japp leen donc pouvoir législatif parce que passeport diplomatique pouvoir exécutif bi moo koy tamponné pouvoir exécutif bi moy tamponné ay passeport diplomatique donc buñu jappé ay passeport diplomatique ci pouvoir législatif dañ ko remonté mu yóbbu ñu ci pouvoir exécutif bi ñu dugg biir palais japp fa ay nit ñoy ñoy ñu ñak doole yi nag mooy doomu baadoolo yi yi fa ne dugg ci business bi ñoy lañ ca japp waaye buñ ko remonté won ba biir palais Macky Sall lañuy japp wala chargé de camp mom lañuy japp parce que biir palais la fofu lañuy ñuy passeport diplomatique de source sûre et claire donc loolu waroon na tax askan wi do mu doon printemps sénégalais loolu rek waroon na indi printemps sénégalais bu suñu jonn yàlla tey dëkk bi di tàkk ne yow da nga fiy jóge par la force moo newoon yoon boo xam ne Mali la mu def Guinée la mu def lii moo newoon yoon boo xam ne ca nga doon génnee palais ba faw ba faw ba faw pour muy clair donc nga jàpp sañu pouvoir exécutif toroxal jàpp suñu pouvoir législatif toroxal jàpp suñu pouvoir judiciaire toroxal suñu pouvoir judiciaire na nga ko manipuler na nga jël député ya na nga na nga jël juge nekk ci seen di di ku ne nga positionné ko ñii nga daane leen ñi nga yóbbu leen Tamba ci àll bi ñi nga yóbbu leen ñi nga xëcc leen ñi nga teg placé say élément kon war na ne ni yaa moom justice bi kenn weranteetu ko yaa moom justice bi kenn weranteetu ko donc le clair na le rek wane na ni askan wi waxuma la nak ay détournement pos ay détournement Sonacos ay détournement euh, té ñoo ñëpp say élément ñoo fa poste bibi bibi bibi bobu noonu bu nek Kolda y fa un poste ay milliards lañ fa cinq milliards lañ fa détourné cinq milliards poste say élément Sonacos pareil L'autorité euh, euh, euh, affaire nationale sénégalaise des milliards détournés ñëpp say éléments lañ nay L'air, 94 Mamour Diallo port et détournement port yaa donc etc., etc., etc. cetera etc., etc. kuddug et rek gars Macky Sall l'ONAS ay milliards lañ fa détourner. Macky Sall gars dañ la yalla bu yow barki alcorane damay xey yow décider démissionner. Démissionner, ne leen ma balen ma ak ay milliards lañ fa détourner say say élément yow Macky fi def yow le niveau de scandale dans ce pays. Le niveau de scandale, Moussoul Am, depuis que l'histoire retiendra que ben président Moussoul Def scandale, il s'est mis def. Les députés, ils ont trafiqué faux billets. Les députés, ils ont trafiqué passeport diplomatique. C'est une détourné diap, nous détourner poste, l'ONAS, port, aéroport, etc., etc., etc., Koudou. Mais ça va, c'est incroyable ab géwél géwél sa géwél kese kese kese kese kese don multimilliardaire mam mam mam 39 milliards Aliou Sall 6000 milliards yow rek ya fi def scandale yu musul am ci kaw suuf musul am yow waye ñun dañoo doyal ci yow loolu motax ñu def vote sanction bu mu la bet ñu lay wër di fan dañ lay nax de Sénégal ñoo la bañ ñoo la jéppi Sénégal bëggatuñ sax wax sa wax tuñ sax ay léegi ay troisième mandat ndax boo ko fi defee dañ lay rey dañ lay rey dañ lay rey kat xatit président bu ñu rey yow yaay njëkk a doon président buñ kil kil carrément di diri di diri sa sa sa sa sa sa yaram bi ci mbedd mi yow yaa ko njëkk doon bés boo fi taxawee di dof-dof na ay ay troisième man loolu moom dañ day leer bañu ñu ci bari rendi la laa la xoolal di la diri ci mbedd yi ka yi di jubile di saw sa kaw ak sa kaw ay saw ay puub ak di jubile boo ko bëggee rek fexe ko pare nañ ko nag pour muy clair na leer scandale yu gën a historique yaa ko njëkk a def fii ci kaw suuf te ñi may wax ñëpp libre nañ ña ngay seen soxla instant yi nag c'est fini rupture lañ soxla rupture totale askan wi ñoo ko laajte buñ demee ba jël ay booyu ndaw teg leen ci mairie yi gars yi amatuñ fuñ jëm pare nañ ci yow bëggatuñ la bëggatuñ la amatuñ ci yow soxla vote sanction tu as perdu mairie yi gën a mag yëpp fen lo nañ la sor fen lo nañ la dul lo nañ la ko fa won woon ka, dul lo nañ ko ay duuluka ka duuluka sor yëpp won nañ ni bëgguñu ko ci la dawee say mairie say ex maire ya ngay daw lañu defon defoon ku sax ñang koy jël ka bu mu jëlé ay moto joxé ko fofu non pour ñu votel ko gaay yi ko wulli yulli tulli bi xolé dafa dama jëlaat ay moto moto jakarta, yi wolé nangu moto yi ex député boobu noonu euh, je sais à côté dem na seen si terre stade ba naan man maa laloon fii gazon bi gazon wax yi dee yooyu noonu gazon fowukaay yooyu maa laloon fii gason gazon synthétique bi lem na gazon synthétique ba yóbbu. sarak tey jii dem na mairie mairie euh, géejawaay ay quelques briques yu mu fa tegal ma ngay for brique bi jël camion bi di ko yéegal noqu li fële lépp ñu ñoo ko moom mais yóbbu leen yóbbu leen ñu may leen lépp. dafa mel ni ku doon sëy si ñu fase ko xoolal jëlal yëre yëpp yëre yëpp ñoo la ko jëndaloon ak dàll yëpp mais bëggoon te yóbbul yóbbul garaaw yóbbul bëggul sa dara yóbbul may nañ la ko birig yooyu noonu Mansour Faye jël euh, euh, lu mu tërati Aliou Sall na ko yóbbu na ko yóbbu tab na ko tabaxee seen duus bëgguñ ñun ñoo ko moom de sañu xaalis la du xaalisam stade boobu gazon yooyu synthétique boobu waaja lem na ko yóbbu may nañ ko ko du xaalisam suñu xaalis la mais may nañ ko bëgguñu dara ñun di leen a fase bëgguñu leen ñibbi leen dox leen dem leen en attendant 2024 nag lañ koy lijjante yoon en tout cas jàpp leen ben affaire wax naa leen échauffement la bu leen ko def match échauffement la commencé guñ ci match bi li échauffement kessa la préliminaire la woon pré léegi nag match bi député yi lay doon euh, mooy mooy législative yi dans six mois mooy match bi bi ñu 5-0 premier deux minutes à la cinquième minute 5 buts cinquième minute cinq buts députés. am ñetti député ñetti député ben député Macky Sall waru ci assemblée nationale sinon dañ ko fay député Macky Sall waru ci assemblée nationale na am jouni yewu askan yewi askan wi nga ans du fa bolen leen fase falee askan wi la liste de yeewi askan wi mu gagné 90% moy 2 ans yi dese tàll té rek mu dé parce que ay député ño fay nek yo xamné ne ño mom doul kat yoy mu fi indone trafiquant de faux billets trafiquant de passeport diplomatique trafiquant de semence trafiquant de voiture d'essence bon d'essence et cetera ñooñu ñëpp dañ leen di yóbbu ci kasso parce que 2 ans moy déssé Macky Sall dans 6 mois boo leen falé yeewi askan wi si député yi ñepp taxaw duñ fa déssé dara dara duñ ko fa déssé duñ mëna a sax wax bo baaw nak Macky Sall day def cocc parce que nekatul fofu nonu majoritaire ci assemblée nationale bi day def cocc kan lay wax ñew leen votel man leen nangam référendum kan ñëpp ay député yo xamni ne ñu 90% vingt dix ay député ñu fa bu boobaa amul benn lu mu fay indi ne ka leen voté di ngeen gis Macky Sall bu liggéey 2 ans bala mo dem dem dina liggéey ba dina defar Dakar dina ko def mu don palais wallaay dina ko def mu doon palais parce que dana ah amatuma benn benn projet de loi bu ma mun a déci bu ma amatuma décision sax foofu samay député yëpp dem nañ lu mu fay defati lu mu fay defati loolu mooy premier mi bi premier mi mooy euh, élection législative yi dañ ko war a ñàkk ñoom ba muy jeex takk takk takk duñ fa am sax ñaari député yu taxawaal nga xam dañuy toog fa waayadi duñ gis seen morom yi comme ñoom ay xaj lañ ne ñoom lépp lu Macky Sall wax bu leen ne rey leen askan wi sax dañ koy voté dégg dégg ngeen ko fi ay député Macky Sall yu taxaw naan sama yoon nekku ci dégluwuma lu ñuy wax lu makki sàll bëgg laay def lu makki Sall bëgg laay def gis ngeen ko fi léegi nag loolu yéen ko fiy dindi la yulli wulli tulli yulli wulli tulli yulli ay poosam wulli ko ba mu daal maanaam ndulli ko ba muy bëgg a dee nga tulli ko kàjj ko fële léegi nag match bi final bi moom mooy les élections présidentielles loolu mooy final bi jàpp leen ni bii di ñëw demi final la instant yi dañ doon jouer quart de finale quart de finale mooy les mooy élections locales yi ñi ngi fas yéene dans six mois qualifié nañ peuple bi qualifié nañ dañuy dem demi finale demi-finale inshaAllah, demi-finale bi préparé wu leen échauffé wu leen defar leen crampon yi daas leen crampon yi ba mu ko ba ñuul waaw point len cramp crampon glisse, nga xam ne taakal tackle taakal ngeen di dóor gars yi député yi taakal ci dënn ci biir taakal ci mole tackle, damm leen tanki, tànk yi ñoom ñëpp damm leen seen tànk yi écrasé leen demi-finale bi il faut que équipe bi ñu